salaamaaleykum salaamaaleykum sama gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm eh, di am mbégte di am kontante bu wér eh, saa suñuy jàkkaarloog yéen ci samedi bu jot ci waxtu wi ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel ak fu ñu mën a ne ñu nekk ci biir réew ak ñu nekk bitim réew ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm waaw tey nag eh, ñuy kontaan lool. jàkkaarloo bi ñuy jàkkaarloo mbokk yi ak xarit yi ñu ngi nuyu sunu mbokk moodu moodu yi di am ci ñoom mbégte ak kontante di rafetlu ànd bi ñuy ànd ak ñun saa su ne mais aussi tamit euh, euh, di bég ci ñun di partager li nga xamante ni moom lañuy def vraiment saa yu la woowee di waxtaan ak yow sa yaram day daw dangay am mbégte di am kontante bu baax a baax ci li nga xamante ni bi moom la ñuy def donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di. ñaanal jàmm di rafetlu ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñun eh, mbokk yi tey nag dafa dekk bés boo xam ne dinañ waxtaanee benn point la mais point bi dafa am ñu bari ñoo xamante ni ku ci nekk dafa ci wax joxe ci ay xalaat ak gis-gis muy le cas Barthélémy Diaz mi nga xamante ni bi rajo nañ ko ci assemblée nationale coow li bari nañ ci. nit ñi fàttali nañ ay waxi Ousmane Sonko ci bi nga xamante ni bi Barthélemy nekkoon na ci xat-xat yi nga xam ni Macky Sall mi ngi ko ko doon teg la Ousmane Sonko waxoon ñu ngi koy fàttaliwaat sénégalais yi mais aussi tamit nit ñi ba tey ñi ngi ñuy wax ñi ngi ñi ngi yëkk ci ay kàddu ña nga xam ne ñoo defoon mbir mi muy ñi nga xamante ni bi tey ñoo nekkoon waa APR tey Abdou mbaw laaj nañ ko ci am na kàddu yum ca yëkkati dinañ jëli tamit ki nga xam ne mooy Doudou Wade Doudou Wade xam nekk koo xam ni ku xam règlement intérieur u assemblée nationale la ndax li nga xamante ni bi tey moom la ñu def le ministre de la justice def bind lettre jagleel ko président de l'assemblée nationale pour ñu raje ki nga xamante ni kii mooy euh, Barthélémy Diaz ndax loolu lu war la wala du war dégg nañ tamit aussi tamit ki nga xam ni mooy Pape Makhtar Diallo euh, moom am na beneen gis-gis boo xamante ni bi gis na ko ci li nga xamante ni bi mooy yëf yi jàpp na ni yëf yi ni mu demee daal warutoon a demee nii loolu di ay tomb yoo xam ni ci lañ war a waxtaan joxe ci sunu xalaat ak sunu gis-gis mbokk yi ka Barthélemy Diaz laataan ñuy ñëw ci radiation bi maanaam dafa am loo xamante bi ci jamono Ousmane Sonko dafa am kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko te boo seetee ci internet bi ñi ngi koy partagé ko partagé waat kàddu yooyu nag moom lañ bëgg a démarrer émission bi ngir ñu àndandoo déglu kàddu yu Ousmane ko yëkkati woon ci mbiru Barthélémy Diaz je vous en prie. di araftu ne leen Macky Sall mi ngi ci tànku bëgg nangu ay mandat Barthélémy Diaz te xam ngeen ni duñ ko nangu. ma nga ci tànku ak ni muy instrumentaliser toujours la justice bëgg a nangu mandat Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar et en tant que député à l'Assemblée nationale xam nga askan wi moo xool ba ne Barthélémy doy na ma ñu ne ko kii assassin la mu ne la bëgg naa kii lii la kii la la mu ne la bëgg naa moom moo ma doy pour ma jox ko Ndakaaru ñu dellu si waat mbër mbër mbër doy na moom moo ñu doy pour ñu mu mu ñu jox ko député Ndakaaru mu demal ñu assemblée nationale kooku kenn warul am sañ-sañu ñëw tey na dama koy nangu. loolu ci violence yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy exercer mu ngi koy waajal nag la ñu teel a araftu. mbokk yi kàddu yi mooy yi nga xam ni moom la ñuy partagé ci internet bi di fàttali. ñi koy fàttali jubluwaay bi nga xam ni moom lañu ci jublu mooy ki doon défendre Barthélemy démb tey moo jël mandaam jubluwaay boobu mooy bi nga xamante ni ñi koy partagé jubluwaay boobu lañ ci amee loolu lañuy ñuy dégg looloo sénégalais bi nga xam ni mu ngi leen di suivre loolu manipule la loolu mooy. Euh, nga jaxase loo xam ni bokkut di manipuler Ousmane Sonko moo waxoon kàddu yii mu nekk kàddu yoo xam ni kàddu yu wér la mu wax ni Macky Sall mi ngi ci ay pexe ngir foqar ci li askan wi jox Barthélemy Diaz Macky Sall mi ngi ci ay pexe ngir nangu ko ginnaaw bi nga xamante ni bi sénégalais yi def nañ li ñuy def ba pare loolu mooy li nga xam ni moom la wax Macky nag dafa dem ba dëggal pexe yooyu ci naka mooy Macky Sall xam na li xañ Barthélémy Dias yëf yi mais mu daadee dem atte lu ñu àtte ki nga xam ni mooy Barthélemy Diaz teg ko ay daan yoo xam ni bartelemi nekkam ci assemblée national doona tut yoon parce que yoon dafa war a def liggéeyam mais Macky Sall moo téewoon yoon ginnaaw bi mu defee loolu Barthélemy ba pare nga xam ni loxooy Barth léegi mbiri Barthélemy nekkatut ci loxoy yoon mais ci bëggi-bëggi Macky Sall la ne Macky moo bàyyi Barthélemy parce que ministre de la justice bi nga xamante ni bii tey parce que lii am nii tey ñii dañoo nekk ay niti yoon moo tax mu am mais bu fekkonte ni duñu niti yoon dañu koy téye di ko xuuxalee Barthélemy Diaz parce que Macky Sall loolu la def tey ñii dañoo ñëw doxal li nga xamante ni bii moom mooy li yoon wax li war a am loolu lañ doxal dañoo def li nga xamante ni bi tey ginnaaw bi nga xamante ni atte nañ mi ba teg ko ay daan waratut a nekk assemblée nationale loolu mooy li nga xamante ni bi mooy dëkk mais Macky Sall jëleewu ko fa li lay wan ne la Aïssata Tall Sall li mu doon wax naan man maa jëlee Ousmane Sonko fii yóbbu ko fële li lay wan ne la loolu ay waxi caaxaan la mooy moom li ko waroon nga en tant que ministre de la justice defu ko te loolu yoona ko ko joxoon ngir mu bind assemblée nationale Barthélémy Dias joge fa loolu ay bëgg-bëggi Macky la Macky Sall bu fekkente ni dañu yóbbu Ousmane Sonko Cap Manuel du bëgg-bëgg Aïssata Tall Sall mais bëgg-bëgg Macky Sall la Macky moo doon doxee noonu maanaam lépp lu mu bëgg faalewut yoon nagaay arrangé ba loolu mën a nekk looloo taxoon Ismaïla Madior Fall lap ci contimax mujj gi xamatoo lan la droit wax parce que ñi nga xamante bi ñooy professeur droit yi nga xamante bi tey ku mel ni Ismaïla Madior Fall da doon ñëw selon bëgg-bëgg Macky Sall mu ñuy wax nañu lii mooy li yoon wax ñii bi ñu ñëwee dañoo donn loo xamante ni bi faawu ñu doxal ko parce que dañu wax ni jub jubal jubbanti li war a am faw ministre de la justice def ko ginnaaw bi nga xamante ni bi def na ko dalde de euh, alerter président de l'Assemblée nationale ñu génne ki nga xam ni mooy Barthélemy ci liste député yi parce que loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li yoon wax li yoon wax mooy li nga xamante ni moom la ñu def moo tax kenn mënula attaquer mbir mi di ko yóbbu ci cadre politique parce que képp ko koy def rek man damay jàpp ni ku malhonnête nga mais xam nga ni li am lenn politique nekku ci parce que yoon nii la war a doxee bañoon koo def nag mooy yaa ngi dugal li nga xamante ni bii moom la ñuy wax politique parce que problème bi daf fii nekk ñu ne defar nañ yoon te bu ñu nee defar nañ yoon ñu gis ni am na lu dul yoon lu ne fàng ñépp di yeewu di ko gis dañuy xam ne lii ñuy wax ne yoon kat defar nañ ko kon day mel ni assises yi ñu doon def ci wàllu justice amut njariñ parce que bu fekkente ne assises yi ñu doon wax ci wàllu justice am na njariñ am cas boo xam ne daf ne fàng fàngaaral ba noppi nag défier assises yooyu yoon waxu ci kon day mel ni wax dëgg fa yàlla lañ ñu doon wax ci yoon kon ku yebu waroo ci am yaakaar lii dafa war a tax nit ñi daal ne ah dëkk bi de yoon fa nga xamante ni fii lii nga xam ni problème la woon kat bu nekk ci réew mi muy le cas Barthélémy Dias yoon war cee def dara defu ko li tax defu ko kon dafa mel ni Barth dafa nekk ci kaw yoon te nag kenn nekkul ci kaw yoon yoon a tegu ci kaw ñépp kenn teguwut ci kaw kon donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy yëf yi mais ñi nga xamante ni bii ñoo defoon mbir yi ba noppi amuñu courage ñoom ci seen jëmmi bopp yegg ca la nga xamante ni bii moo nekkoon seen bëgg-bëgg ak seen càkkutéef ñooñu tey ñi ngi yëkkati kàddu di wax ñu déglu ab du mbaw ginnaaw bi nga xamante ne bi laaj nañ ko ci mbiru Barthélemy Diaz indi na ci ay tontam ak xalaatam ñu déglu ko je vous en prie. Barthélemy Diaz qui a été radié de l'Assemblée nationale comme commentaire par rapport à cette décision qui a été prise. Voilà, euh, merci beaucoup. Euh, au nom du groupe Takku Wallu Sénégal, vous avez suivi comme nous tous que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a demandé la radiation de notre collègue Barthélémy Diaz sur la liste des députés. En tout cas, notre groupe Takoualou Sénégal dénonce cette forfaiture parce que vous avez vu que cette Assemblée nationale a commencé par violer les lois. D'abord, deux plénières, deux forfaitures. La première a été lors de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, vous avez vu que cette majorité d'aujourd'hui a violé les textes en s'arrogeant tous les postes de vice-président alors que la loi nous donne le huitième vice-président, c'est-à-dire les Sénégalaises et les Sénégalais qui ont voté pour nous, nous ont octroyé un poste de vice-président. Et le pouvoir PASTEF, qui est aujourd'hui un parti État qui veut installer une dictature dans ce pays. mbokk yi kàddu ma yi nga xam ni moom la Abdou Mbow wax mu nekk kàddu yoo xamante ni euh, boo ko dégloo da ngay rus. parce que li tax ngay rus di nga rus waaye di nga sant yàlla di nga sant yàlla c'est parce que li tax ngay sant yàlla bi la sunu borom dimbalee ba nga tàqalikook façon yii nga xamante ni bii ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoo teewoon yëf yi parce que lii nga xamante ni bi moom la wax li tax mu ruslu xam na xellan li nga xamante ni bi moom la yoon wax moom Abdou Mbow xam na ni yoon dafa wax ni képp koo xam ni kii condamné nañ la rawatina comme bu Barth bi mënuloo nekk député li war mooy ministre de la justice lii mu def noonu la war a def Abdou Mbow xam na ni li ministre de la justice def li ministre de la justice def li mu war a def la def xam na loolu ba pare terewu ko muy wax leneen te xam na ni bu ñu waxee leneen it ñun ñi nga xamante ni bi ñoo koy déglu du ñu gëm ay waxam mais amul ci problème na wax leneen rek façon bii nag lañ doon politiquer ci senegal façon politique bii nag dafa xeew yi Abdou Mbow bu fekkente dafa bëgg a def carrière ci politique façon politique bi doxatul parce que li nit ñi xam te muy dëkk même muy metti di dal ci yow nangu ko neelkat ah lii de mooy li nga xamante ni bii mooy yoon lii de mooy li nga xamante ni bii mooy dëkk même buy dal ci yow parce que loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li am solo nit dangay nangu. bu yoon dalee ci yow maanaam nga xamante ni bi lii nga xamante ni bi moom lañ yoon la nga nangu ne liikat yoon la Cheikh Tidiane Youm déglu naa ko mu wax ci bi mu génnee mais dafa xam ni liikat yoon la donte mook Barthélemy ñoo bokk même coalition boo xamante ni moom lañ nekk ci seen kaw la dal mais bi mu génnee nit la koo xamante ni kii nitu nitu nit ku jub la dafa xam ni lii ñu def yoon moo leen ko may parce que yoon moo moo tëddee nii même bu fekkee ne metti na yoon la kii nag li tax mënta nekk aise bu dëggalee lii day toroxal nji kilifaam gi nga xamante ni moo démissionné pour mu mën a dugg c'est ça le problème parce que Abdou bu toogee di wax bu dëggalee moom yoon day xam ni kon day wane ni kilifaam ci lu dut yoon la doon dox parce que noonu la waroon a doxalee te moom moo ko wuutu ginnaaw bi mu démissionné mu dugg jàpp na ni su waxee dëkk Macky Sall da koy mere moo tax boo seetee ci biir wax ji sax wax na ci li tuuti mais li ko gën a intéressé mooy ma ngay wax ci seen euh, poste vice exemple ba nga xamante ni bii ba Ngom moo ko waroon a bàyyi ñu dugal jigéen mu lànk ne du ko bàyyi foofu la gën a sax xuus te pourtant ñi ngi ko laaj ci lii parce que xam na lii bu ñu ci nekk à parce que bu ciy wax lim ciy wax day jooyloo lool ak dëgg te bu ci waxee dëgg toroxal ki nga xamante ni moom la wuutu ci assemblée nationale looloo tax mënul nekk à ci li nga xamante ni bii mooy question bi ñu ko posé. loolu nag dafa am solo moo tax may wax ni sénégalais bu ne dafa war a santaat borom bi subhaana wa taala parce que doon na doy waar lool nguur gi bañoon na lijjanti la kaa Barthélemy buñ ko lijjanti wutoon doon na nekk loo xamante ne bi tache noire lay doon ci ñoom parce que day mel ni li ñu ñu dikk amuñu courage ngir def ko lii ñu def nag dafa wane ni li leen yoon li la yoon di may ak koo mën a doon bu yoon dalee ci sa kaw yoon dina dal ci sa kaw te loolu c'est très important ñu àndandoo déglu Doudou Wade Doudou Wade na bu baax a baax yëf yi yëkkati na ay kàddu jëmale ci lii nga xamante ni bi xew na ci assemblée nationale muy mbirum Barthélemy ñu déglu Doudou Wade kàddu yi nga xamante ne bi yëkkati na ko je vous en prie. waxuma sax yoon daf ko daf ko santaane santaane bu dëgër euh, dafa wax ne ci constitution bi d'abord ndey charte réew mi dafa wax ne député boo xam ne bi da nga am condamnation bu am définitive bu ñu àtte bu mu jeex li ñoom ñu tuddee tubaab yi l'autorité de la chose jugée ba nga xam ne kenn mënu ci dellu si. bu boobaa yow ministre de la justice mooy bind assemblée nationale wax ko ne nañ leen génne nañ leen génne ci liste député yi mënoo ko nekk loolu bi ma ko constitution bu waxee ba pare réglement intérieur biir assemblée bi def ko reprendre ci article cinquante et ki fi nekkoon député di sax sam pap laaj li ko jaaxal mooy lu tax nguuru Macky Sall musuñoo appliquer loi si lu soxal mbirum Barthélémy Diaz. def nañ ko tey mais régime bi génn. mënoon nañ ko def parce que li ñoom ñoom fi dañuy bàyyi condamnation bi te bi ñu fi nekk ñoom booba temps condamnation bi définitive bi am na te ministre de la justice amoon na ci gouvernement bi te assemblée baa ngi foon ak ay député Doudou Wade di indi ay leeralit si anam gi nga xamee ni noonee la ñuy rek remplacer ab député bu ñu dàkk sa assemblée nationale. ci listu sàmm sa kàddu xaw ma kan moo topp ci Barthélemy xam naa ne jigéen la. ngonte bon bu fekkee ne Déthié Fall moo ci topp Déthié Fall moo ko war a remplacer parce que góor mooy remplacer góor jigéen mooy remplacer jigéen. mbokk yi li mooy li nga xamante ni moom la Doudou Wade wax wane ni yoon daf cee sax far sévère ci lii nga xamante ni mooy li xew. yamul foofu mu ne assemblée nationale règlement intérieur assemblée nationale da cee ñëw mu ne li ko jaaxal mooy nguur gi fi nekkoon ana lu taxoon jëfewuñu ko loolu mooy li ci doy nguur gi fi nekkoon lu taxoon jëfewuñ ko xam nga duuduwaat ñii ko jëf jaaxaluñ ko parce que ñii dañoo topp yoon mais ñi nga xamante ne bi dañ ñëwoon ñooy incarner état ba noppi décision justice ñëw nga xamante ni bi tënk nañu ki nga xamante ni mooy que ne nañ ko jeex na définitive ministre de la justice war a bind bindut assemblée war a wax waxut loolu mooy li jaaxal Doudou Wade parce que loolu noonu la war ta demee loolu ma lay wan rek ñii génn fi ñu tolloon ci ñàkk wekk ak ñàkk a respecté yoon fi ñu ci toll respecté wu ñu yoon weguñu yoon seen yoon ci li nga xam noonu la yëf di demee seen lépp dafa tënku ci bëgg-bëgg Macky Sall gis nañ fi ñaari décision de justice yoo xamante ni bii ñu lànk ne duñu ko jëfe benn bi di di saba si fay beneen bi nekk fii nga xamante ni fi mooy Ndakaaru lépp jëmoon ci kaa Ousmane Sonko ñu lànk ne jëfeewuñu loolu ñëpp gis nañ ko donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir yi kon jàpp naa ni amul kenn koo xam ni ku honnête nga koo xam ni yaa ngi wax ci yëf yi war cee jiixi jaax parce ñenn ñi nag dañuy dugal li ñuy tuddee sentiment comme que kii na waroon nañoo waroon nañoo mais après waroon nañoo lan la mën a yàq ëllëg ci loo xam ni tabax nañ ko ba pare ndax doo jëfee li nga xamante ni bii rek mooy li yoon wax parce que sinon keneen dina tàbbi ci même mbir mu mel noonu waaye dañ naan le cas diw mooy tax duñu ko mën a tee def nangam finalement réew mi dootul doxati ci charte yi nga xam ne moom la ñu rëddoon mais ci yeneen mbir lay dox donc loolu mooy li nga xamante ni mooy yëf yi mbokk yi eh, dañuy ànd déglu ki nga xamante ni moom la ñuy wax Pape Makhtar Diallo Moussa Diop posé na ko question bu am importance ci mbir yi moom am na jiixi jaaxa ci yëf yi daal mi nga xam ni noonu la tëddee. ñu déglu Pape Makhtar Diallo bu ñëwee daal di joxe li nga xam ne moom la ñu wax suñu commentaire je vous en prie. oui quest qu'il fallait faire laisser Barthélemy Diaz mu siéger tout en sachant que ñi ngi violer l'article 61 du de la constitution voilà da nga jàpp ne lii ñu def moo baax li ministre de la justice def appliquer la loi quelle que soit interprétation ñu ci mën a def. Euh, non la loi moom euh, dañ ko war appliquer euh, bañ si xool diw bañ si xool ma sàmm bañ si xool ma dem. Hmm. mais seulement li ciy xaw mooy que. Euh, cette situation dafa présenté wu euh, ci ay jamono xalifa euh, Sall wax nañ ko ba ñu appliqué peine bi nga xamante ni moom moo moom lañ tegoon ci kawam. Mhm. dafa man ay conséquence bokk na ci rajee ko ci assemblée nationale. bokk na ci rajee ko ci ville de Dakar. quelle était la position de Ousmane Sonko au temps dafa def sorti nii la méchanceté ak la lâcheté dafa am non et pourtant ñooñu au temps dañuy mhm. sukkandiku. ci li nga xamante ne mooy décision de justice. xam nga là où cette affaire ma xaw ma gêné quoi mooy que tout le monde est d' accord que ni mbirum Barthélémy Dias bi mbirum politique la bu àndoog ak Macky Sall peut-être laata condamnation boobu di définitive. du am condamnation wala du mës a définitive. parce que traîné nañu li nga xamante ni moom mooy appel bi euh, presque sur dix ans ba mu amee ambition nekk maire de Dakar si nañu indiwaat li nga xamante ni mooy appel bi. donc condamnation pour mu définitive il a fallu ko mu jegee ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko ci boppam taxaw à plusieurs reprises di Macky Sall tànkam mooy fexe ba Barthélémy jaas bañ a nekk maire de Dakar. oui Barthélémy Diaz nekk maire de Dakar ñu entamé yeneen procédure Macky Sall entamé yeneen procédure Ousmane Sonko taxaw ni Barthélémy Diaz mi Macky Sall da ko bëgg na da ko da ko bëgg da ko da ko bëgg jële fi mu nekk. ci lan la doon sukkandiku pour jëlee ko euh, fi nga xamante ne fa la Barthélémy Diaz nekkoon. mooy ci. li nga xamante ne mooy condamnation bii ñuy wax tey. donc est-ce que cette condamnation dafa légal est-ce que nekk na lu légitime. loolu question la parce que bu nekkee lu légal la donc Ousmane Sonko lu mu doon wax démb ak bëxi démb ay waxi caaxaan la bu nekkee lu légalul la est-ce que mën nañ ci sukkandiku ba tey jii empêcher Barthélémy Dias mu toog assemblée nationale moo tax ma ni cette affaire dafa ma daf ma gêne trop. mbokk yi Pape Makhtar Diallo euh, Moustapha da laaj ko ne ko ndax danga jàpp ni dañu waroon a bàyyi Barthélemy mu continuer ba noppi ñu xam ni nekkul ci yoon waaye ñu bàyyi ko mu continuer way danga gis ni nii ñu def mooy li gën appliquer li nga xam ni moom la ñuy wax yoon Pape dafa tontu ba pare soo indi leneen loo xam ni moom tontu na boppam ci bi muy wax loolu daf ne loi moom dañ ko war a exécuter bañ cee xool diw wala diw bañ cee xool ma sàmba wala ma demba waaye appliquer luwaa loolu mooy li nga xam ne mooy réponse bi jeex na léegi nag mu ñëw nag pour xool diw ak diw ak diw moom après mu bàyyi loolu yëpp mu wax nga xamante ne bi mooy li mu waroon a def nga xamante ne bi loolu boo ko waxee rek mooy tënk nga yëf yi léegi nag mu ne waaye dañu war a xool kii woon na fi xalifa defoon na lii Ousmane ko waxoon na lële Barthélemy def na lii Macky Sall def na ni loolu mooy yeneen yi nga xam ni moom lay wax loolu kii àtte yoonam nekkut ci foofu ak ki nga xamante ni ki tey dafa ñëw ngir doxal li nga xam ne mooy yoon yoonam nekkut ci moom li muy xool mooy lii mooy loi la nga wax ca njalbeen nga loolu lay exécuté ci loolu nag bu fekkente ni bi da nga ne jaar na yoon rek kon jeex na kon donc jaar na yoon leneen li ci des yëpp nag ay yeneen mbir la yoo xamante ni bi euh, yeneen mbir la ndax juge yi ko àtte woon xam nga tey nit dina nekk leneen xëy dugg ci diine fekk takkoon na jabar mais est-ce que dañuy révoqué waat indiwaat ne non léegi nañ ko takkaat parce que kii déedéet parce que loolu amoon na demoon nañ même bu fekkonte ni dañu takk takk goo xamante ni takku kii la def nañ la nga xam ni moom lañ doon def léegi dugg ngeen ci diine da ngeen di appliquer rek doxal li nga xamante ni bii mooy yëf yi yoon yoon la moo tax Macky Sall ba muy utiliser yoon dafa am foo xam ne bu demee ba dugg fa nan la mën a defaat mooy comme li nga xamante ni moom la defoon ñoom Ousmane Sonko. bi mu demee ba ñu tëjeeg ba kii ba mu bëgg a delloo si waat Sonko ci la indi luwaam bi muy tuddee amnistie bi pour ñu raxasaat yëf yi looloo delloowaat Ousmane Sonko ci li nga xam ne mu ko loolu la mi taxawoon ci assemblée nationale ba ñuy voté luwaa bi mu wax ne moom ci jëmmi boppam fii wag juróomi at mënta nekk candidat parce que dañ ko condamné mbir moomu Aïssata Tall Sall moom ci jëmmi boppam mbir mi dab na ko ci biir kii parce que Barthélemy warutoon a taxaw foofu sax ba di leen wax loolu bu doon ñoom doxal nañ li nga xamante ni bii moom la ñuy wax yoon doon doxal nañ li nga xamante ni moom la ñuy tuddee yoon Barthélemy warutoon a taxaw ci assemblée nationale ba di leen wax loolu mais seen ñàkk def li nga xamante ni bii mooy topp yoon yegguñu ci seen logique seen li nga xam ne moom lañ bëggoon parce que ñoo dem ba tàbbeel fa seen bopp bañ àtte nañ. Ousmane ko bañ demee ba àtte ko ba génn ko ci list yi neen nekkatu ci parce que lii ak lii daal di conseil constitutionnel fexe ba nga xamante ni bi mënta nekk candidat bi ñu xamante ni bi bëgg nañu ko delloo si ñoom ñoo voté seen loi amnistie daal ne raxasaat nañ ko ba mu set delloowaat ko ay mbiram waaye kii nag dañ ko raxasut même bu fekkente ni bii ak lu ñu mën a wax yoon googu même bu dee lële yoon gu dëngoon laak loolu waaye yoon a ko mën a raxasaat il faut ñu jaarelewaat ko fu ñu koy jaare pour lenqaliwaat ko parce que bu fa jaar mënta set parce que condamnation boobu daf ciy nekk kii nag dañoo ñëw ne ko nañ li fi jaaroon jaaratu fi waaye moom Barthélemy dafa amut sens bokku ca ca la nga xam ne mooy yëf yooyu boole wuñ ko ci donc lii mooy li nga xamante ni bii moom mooy mbir yi donc jàpp naa ni euh, réew mi li nga xam ni moom lañu gis ni tey euh, nekk na loo xamante ni euh, maanaam même bu fekkee ne yéene nit lenn waaye nag nañ xam ni ki ko def Macky Sall la ay bëgg-bëgg Macky Sall ay doxalinam mooy continuer moo génne Barthélemy Diaz ci assemblée bi ndax li tax ñu génne ko bu dutoon ak Macky Sall loolu du am ku ko mën def nu mu mën a tudd ñii ñëwuñu lu dul appliquer li nga xamante ni bi moom la ñuy wax li droit wax loolu lañ def mais Macky Sall moo génne Barthélemy Diaz ci assemblée bi donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy yëf yi jarut leneen ñu koy wax Ousmane Sonko ba muy ànd ak Barthélemy Diaz di xeex xeexle na ko taxaw na wax na def na li mu war a def yépp ginnaaw gi nag am na yeneen yoo xamante ni bii jaar na fi. Barth amaat na beneen taxawaay yeneen jaar na fi léegi nag bu ñu bëggee indi na yeneen taxawaay yooyu moo waral lii am am yaa xayti déedéet lii am nii bu amee li tax mu am mooy ka ko def mooy ki ko condamné dossier Ndiaga Diouf Macky ngëm-ngëmam bi mu ci amoon bu fekkonte ni bi dëgg na toñoroon na ko seetaloon na ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias bu yàgg mais seetalu ko dafa jël yëfi di ko utilise di ko jariñoo saa yu ko soxlaa ci lay jël di ko wëndeel di def lum ci bëgg a def mu nekk mbir moo xamante ni bi saa yu Barth waxee moom lañ koy génneel Macky Sall musul bëgg yëf yi jeex musu ko bëgg te demoon na ca kër xamal ko ne ko sa doom dañ koo tooñ jaaduwut dossier Ndiaga Diouf et pourtant bi mu nekkee président 12 ans fexewut a def loo xamante ni bii loola jeex na defu kon mbir mi du mukk ki nga xamante ni moom la ñuy tuddee eh, régime bii déedéet régime bii deful deful Barthélemy dara defut lu dul li yoon dogal mu jafee ko te loolu lañ mooy li nga xam ne moom lañ doon ñaan mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xamante ni bi ñu ngi ko àndoon ci samedi bu jot ci waxtu yi ñuy joxante dig daje beneen samedi ci kàttanu borom bi jërë ngeen jëf